mbokki Equivox TV nuyooti naa leen ziar leen du mën a ñàkk ak Babacar làmb la xam nga fii moom làmb ji day jax day neex day saf parce que loolu la yàlla sunu borom bi dogal maa ngi nuyu ñëpp di balu ñëpp àq tey nag fii nu toog bu ngeen gisee ci mbedd la ñu toog li ko waral mooy xam nga waa Bawol buñ ne Bawol dañuy wax làmb ndax biir fu mu seere gomis dañ koy dag dañ koy jënd dem toog di seetaan Fallou njaay mi nga xam ne moo jóge Njujuuf làmbaay te foofu ay gor ak i gar mi yàgg fa moo tëgg làmb suba ci samedi ji di tombeek le 10 avril te 4 millions nam ko defoon le 27 bi passé mars bi mu ko defee nag ne day sargal ni waaye yemu ca ne léegi day ci sargal la bool bool yi Bawol sans frontière président Bawol sans frontière moo toog nii muy Bada Jonn ngeen xam ko ki ci toog sama góos Cheikh Anta di président écrit Bawol ba ñoom kéwél ak ñoom wulli un nekk ak ñoom wulli de kii toog tamit tur bi aas aas mbër di doomi Bawol ci moom sax laay njëkkee As maa ngi lay ziar. salaamaaleykum Babacar ma sant yàlla julli jël sant sama ñaari waajur di sant sama gaay yi ñëw fii yëpp ku ci mel ni Bada Dione président Bawol Sans Frontières ak Cheikh Anta ak Daouda Sarr maa ngi leen sant di la gërëm ak yow mi indi site bi tey jii di nu jël maa ngi leen sant di la gërëm bu baax a baax baax a baax. loolu Fallou Diouf ngay doomi Bawol noo ko gisee. Fallou Ndiaye dafa dolli mbattu te ndaal rek parce que aussi tamit. àdduna nii la booy jëf dara da cee war a mën a boole say mbokk comprendre kon bu demee ba tudde Bawol sans volontaire drapeau Bawol yëpp am na ci ferte te bu soobee yàlla sunu borom bis ba bis ba moom bu so bu soobee yàlla sunu borom bis ba dina fees del gaa yëpp dina ñëw mbëri Bawol yëpp dina ñëw ni ngi wiite ñëpp nag mbër yëpp xaajunu kenn xaajunu ma Samba xaajunu ma Demba ñëpp na nu ñëw ci bis bi xam ne ku ñëw sa bopp nga ñëwal lépp Bawol la waaw. ak sama waa borom oto bu bees bi doomu ndeyu Kara Mbodj maa ngi lay nuyu Cheikh Anta Babacar maa ngi lay fay. yaa ngi si jàmm. maa ngi sant bu baax. sama waa ji gëj naa la gis de temps yi da ngaa raar de. non dégg maa bàyyi da nga xaalis léegi bàyyi ma. xaalis man yaa may jox xaalis ma la bàyyi du sotti. <laughs> dëgg la eh, ana waa Niger ak fa. ñu ngi waaw maa maa leen woon site bi de maa leen ne kii mooy reporter bi gën a mag Sénégal. non damay takkale reporter bu ndaw laa bàyyi loolu damay takkale rek. loolu moom taalibe la lu ne fànn kenn du ko jeex. loolu moom ñëpp xam nañu yaay numéro un ne nii moom. non damay takkale damay takkale léegi. ñu waaw ñu ñu ñu ñëw ñu ñëw ci li nga xam ne moom la Fallou Ndiaye def muy suba teg 4 millions. Eh, ne Bawol sans frontière sargal Yaxya Jóob Yékini loolu yow en tant que doomi Bawol jiite ab écrit waaye itam ñu gis sa taxawaay ci Bawol gi yëpp loolu c'est anta noo ko dundee waaw maa ngi nuyu ñëpp d'abord di nuyu ñu ma fi toog di nuyu Bada Dione di nuyu Daouda Sarr di nuyu As Mbër ak George Bourse di la nuyu aussi parce que yow moom wax dëgg képp képp ku tudd Bawol xëj na dañu xëj na képp ku tudd Bawol daal làmb mënoo wax deux te tuddoo Babacar kon ñu ngi lay gërëm aussi bu baax di gërëm aussi monsieur le maire maire yi Bawol yëpp ñoom Djib Thiaw monsieur le maire Pape Sène Mor di sant ñëpp di la xamal aussi Fallou Ndiaye moom xëj na lii mu def mën naa ne man daal dama koy sant ba dama parce que lii ah, voilà jëkkewu ko tey quoi Fallou ba ñu xamante ba léegi tàngam luunu ci dara lépp luy teraanga defal nañu ko lépp lu ñu xewle day teew ci ñuy jëkk moom mooy ci ñuy jëkk ñëw lay bokk ci ñi mujj ñi bi lay bokk muy làmb muy jàngireefan muy tabaski muy xewu jam xewu ay lépp waaw kon nag lii mu def moom mënuñu lu dul kontaan kontaan ci waa di ko rafetlu waa te di woo bawol bawol yi man moom écrit bi ma yor dem la ma booy yi xamal ne ma maanaam comme yéen lañ ko tuddee ñoom ndeng ñoom saal ndengaleer ak ñoom carrière na ma ñoom ren gépp daaw ba léegi bëréwuñu mais ñoom moom pare nañu pour bëre si suba pare bëre si te xam naa ne kewel itam am na lu muy waaj mu ngi mën a ma mën na maa def surprise ah. waaw pour bëre si léegi ñu ngi woo supporters yeeg ñëpp goor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp ñu ñëw jàppale falu aussi parce que nit moom bu mu la gën a gore bu la yaakaaree ba tuddee la dara rek fexeel ba la mu ca doon séntu mu am ci lu kawe njortam. lu am na solo Cheikh Anta macha allah léegi nag Gomis suñuy ne mooy ci ki nga xam ne moom mooy Bada Dione comme ni may wax rek ba muy jógee reefan di ñëw fii ah du nii la fi ñëwee woon waaye tey bu doon ñibbi defe naa li ko yàlla dénk macha allah catuwuñ ko mënu koo teg ci sax di ko yóbbaale loolu nag li koy may mooy jom ba pare am personnalité. defe naa tey kilifa yi ne ci dëkk bi bëri na ñoo xam ne ñu ngi jëflante ak ñoom ak moom te xeebuñu ko te loolu tamit defe naa ne fulla ak jom ak xam fi nga boo ko koy maye mu jiita bawal sans frontière moom Bada jon nekk kilifa macha allah nekk sama waay ndax nag yaakaar naa il faut mu wax la ko Gomis moom mii bokk na si ñeme ñeme loo nag wallaay la si ndax tëj na ma ci ruq ba tàyyi ne ma melal nii jaaral fii di aw fii te defe naa rëccuwuma si dara kon grand maa ngi lay ziar di leen ñaanal jàmm yow tamit di la. wax dëgg daal Baol sans frontière yaa ko jiite tey. waaw baabakër ñu ngi lay nuyu di nuyu sama rakk yi Cheikh Cheikh ak ñoom As xam nga di nuyu it waa Equivox nga xam ne tey wax dëgg yàlla doon nañu ay nit ñoo xamante ni nit ñu xam fu nu jëm lan te ñu ngi xam fi mu jëm mooy. bi ñu dikkee danoo xool koo xamante ni xëj na dafa yàgg ci làmb tarbiyewu ko li muy def mu mën ko di liggéey ba agsi fen fi ba nga xam nga tey wax dëgg yàlla télévision yi sax ku ci sañoon am ku mel ni Babacar bu ñu dikkee décroché ko ñoom kon jiw munu te aussi euh, am nañu xam-xam am na nañu conseil daal parce que it nag wax dëgg yàlla affaire yi nga nekk di raam di dox dik siif moo gën a gaaw te ñoom danoo dik siif parce que boo di jël ki nga xam ne tey mën nañu ne si yi ci làmb yëpp moo nekk le maire nga dikk décroché ko vraiment am nga mérite kooku moom dañu koy sant parce que xam nañu ne moom fos yéene wu da des gannaaw parce que ku fos yi boog ku xalaat ku gëmul sa bopp doo dikk fos yéene jël première te ko ànd ak yow première la jël bu nu paree foofu nag di dugg ci affaire évétement bi Fallou Ndiaye faw ñu gërëm ko parce doonte sax wax dëgg yàlla dafa def li ko war parce que Bawol la bokk Bawol sans frontière la bokk parce que Lambaay mooy xolu Bawol mooy capitalu Bawol ah yaakaar naa bu fa dekkee di sargal Bawol Bawol yi vraiment gërëm ko it gërëm sa bopp la mais nag ak ku mu mën a doon nga nekk Bawol rek di góor góorlu ñun dañu laa war a jaajëfal war la jàppale ah leneen li ci des mooy da di bés boo xamante ni Sénégal yëpp a ngi koy xaar bawal yëpp a ngi koy xaar ñu ngi ciy woo képp ku di bawal bawal ak képp ku ne askanu séeréer parce que ñun ay séeréer lañu ah beneen bi li gën a tax mu porté daa fekk ñuy waajal sunu komba muy combat Tafatine nga xam ne bawal sans frontière dafa bootu ci ginnaaw Tafatine ak xale yëpp ñu yor combat boo xamant ne nii combat bu am importance la boo xamante ne nii lii sunu première sortie moo nekk suba tafaatin day ñëw euh, non tafa day ñëw kooku moom waxunu ay waxam réglé naa ko moom ba mu dee te it moom jarul réglé sax parce que ba nu waxee dane moom damay ñëw parce que xam na digganteem ak Fallou xam na ne affaire bi yéene la te affaire bi da préparation boo xamante ne nii dañu ci war a jàllale benn message pour bawal bawal yi autorité bawal yi ku mel ni Mor ngoom ah euh, Gora Ngom bu Sedima ku ci mel ni Jibril Thiaw Maître Pape Sène mbay Dione Khalil Fall ak doomu bawol yëpp rek yi nekk ci senegal nga xam ne yàlla denk na leen teraanga dañu leen di woo ci combat Tapha bi ñu jàpp ci pour ñu daan waa ji continuer dox jubali yoonu roi des arènes parce que loolu it wax dëgg fii mu toll dafa jot parce que Tapha amul leen loo xamante ne nii moom la nekkati di ko prouver ci lamb lu dul roi des arènes parce que daan booy ñaa moom dañu naa moo ko man rek moo ko doole est-ce que comprend kon nag euh, Fallou li mu ñu defal moom xamu ko bu soobee yàlla ak yonent bi ñun ak sunuy bokk ak bawal bawal yeeg xeetu séeréer yeeg ak ku mu mën a doon ci àdduna dinañu ñëw ci bés bi làmb ji fees booy tuuru ñu bëre ko ci jàmm ak ci salaam waaw di woo ñëpp daal Bawol sans frontière lan mooy ay projet ci Bawol. waaw Bawol sans frontière li di projet mi yomb na ay danoo dekk Bawol Bawol Bawol yi bëri ci Ndakaaru di jàppale ku ne tasaaroo a ah, danoo bëgg Bawol récupérer ay doomam ay doomam yëpp booloo am benn gis-gis am fu nuy xoole di taxaw di défendre Bawol ci wàllu social wàllu polotik wàllu lépp. képp koo xamante ne ni leader politique nga boo xamante ne nii xaj na da nga nekk di yëngatu ci politique nekk xale bu nu sañoon yóbbu la ba nga nekk présidence nga nekk ministre ak koo mën a nekk daal muy étudiant yi muy bépp doomu bawol boo xamante ne nii gis nañu la nga nekk ci jafe-jafe bawol sans frontière dañuy taxaw xam nga nag lépp looy dox fi mu toll message bi dañ koy jàllale ci làmb parce que làmb dafa gën a gaaw pour nga jàllale sa ay message mais ñun Bawol rek la ñu bëgg a dajale xeebu nu ko ci dara du question ci làmb rek la ñuy yëngatu mais làmb de di ci nga lépp li ngay def ci nga ko ma mën a médiatiser daal pour que ñu xam li ngay def xam fi nga jëm loolu mooy Bawol sans frontière léegi balaa ñuy terminer dafa am laaj ma lay laaj Yékini bu ñu koy sargal ci bés boobu tamit Yaxya Jóob Yékini moom defe naa bokk nga ci ñi ko gën a xam Sénégal Yékini waaw Yaxya Diop Yékini de wax dëgg yàlla man sama waay la parce que kul ma jox cër la mu ngi doon entraîné stade Assane Diouf may entraîné géeju kusum gi écrit Bawol ñu dekk gol tappe des fois mu génne woon Assane Diouf ma génne kusum ñu ànd dox ba gol tappe moom it mu doon nit koo xam nit ku am yéeg ci nit la parce que boobaak léegi fu nu dajee daf may bëgg a for woon te mbapat yi muy teg fii stade Iba Mar heure bu ko teggoon sama invitation dina ñëw lu mu xat-xat man dinaa ñëw fekke ko mu doon mber moo xamante ni nit wax dëgg dama ko mës a gëm bëgg ko parce que dafa déparé sama kanam bo fi mu agsi kon Fallou Ndiaye buy def loolu ci bore simple vraiment juumul parce que Yékini doon na koo xamante ne nii nag euh, roi des arènes goo xamante ne nii kenn mënu koo contesté moom moo ko moo ko fi yor de mm. waaw moo fi doon mbër boo xamante ne nii nommé nañu ko cinquantenaire jël naa fi sable door jël champion d'Afrique plusieurs fois jël meilleur lutteur d'Afrique nekk roi des arènes dik ci làmb ji huit toog ba bi muy bàyyi fin de carrière am la mësa daanu dafa bi mu jeexalee la daanu mais bi muy toll ci digg dëndam góor mënu ko daan ci senegal kon kooku Sénégal gépp a ko war a sargal c'est que nag dañu yomba fàtte waaye ba fi mu toll moo nekk roi des arènes boo xam ne moom dafa dik aller retour ñi fi nekk yëpp daan leen ku fi mës a doon dara daan na la daanaka ñi ko daan ci ginnaawam la ñu nekkoon parce que bi muy daan boobu ñëwagunu boobu mënu la bëre ak ñoom bi mu demee bay raccroché la ñu ko daan kon kooku dafa jara sargal daal vraiment nag loolu moom képp ku soxorut xam ne ba lamb di am ba léegi ni mu mënee gars yi kenn mësut leen ne ma ne waaw loolu am na solo léegi fi may jeexal léegi yow mooy ci le cas de Boy parce que ma dégg ngeen bëgg àndandoo ci combat bi Baol sans frontière wala ci drapeau bi ànd nekk benn jàppale Tapha Tine ngir mu daan Boy ñaa Boy ñaa itam yaakaar naa ne ah donte doomu pikin la waaye itam yaakaar naa am na lu mu am Bawol Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar est-ce que Boy Niang yaakaar ngeen ni yéen seen mbooloo ma mën na koo daan ndax Boy ñaa mi leen ñeme ba jël seen avance te keroog am na lu ma mën a gërëm wax muy Burkhane Wade moom nee na ñoom dañoo pare xaw ma dégg ngeen loolu mu déet. waaw bu nu xam nga lu ñu pare pare ñoo leen gën a pare. nii na gën a pare Boy Niang luy pare lu du doole dooley pare di te booy Niang bu ñu te doon di nelew entraîné wu nu muy entraîné fukki at mën du doo ëpp doole jon ba naaguwu ngeen non xam nga ci gàllaaj gàllaaj xam nga gàllaaj dina daan mbër même bëre dina daan mbër mais pare nag doonul ci bëre pare ci doole la Boy Niang da ngeen yaakaar si gàllaaj la teg bëre non te ci ci lépp la ko teg parce que moom dafa prouvé ba ak fii parce que moom wax day yàlla booy bu mën a bëre la aussi man booy ma respecté la ma respecté ko parce que man awma ci xel yaar ci moom xam nga bokkuma ak ñi nga xamante ne nii dañuy yor mber rek ànd ak mber mi tax ngay saboote mberu jàmbur ñun dépassé nañu foofu di nga gis ñu ci topp di ci coowi nit boo ci dem police ak lu ne te fekk na yow bu arbitre soufflé ca tuus ya ngay ne ca biti ngay nekk xam nga loolu moom daanaka boo amee xam-xam da ngay xam ne loolu jaru ko mën nga ànd ak sa mber rek comme benn bés la ngeen gunge ko mu bëree daan bu ko defee booy ñaay sama booy la booy bu baax la yeneen combat ngi fi mën naa daan yeneen combat. pour ci bi yow mi xam nga xam ànd ak tafaatin doonut ko pour que daan ànd ak tafaatin rek bawol nekk benn bolok mooy tax tafaatin daan booy ñaa tafaatin bu loolu dafa yorlu daan booy ñaar mais nag promoteur bu la teggee lay mbër mooy mbër mi dikk feesal stade bi del ànd ak ay mbokkam ñu xam ne kii lii la nga xam ne ëllëg. kase bu nu ko fay ñu xam ne mérito na ko waaw foofu laa lay waxee waaye du ànd pour que leneen parce que mber mi moom met na li mu doon yëg na prouvé du booy ñaale njëkk a bëreet. mais booy ñaay rut lu daan tafaati. non yow ku jël sa avance mën na la daan waaye nag daan nit di nga daan nit te mu mën la man xam naa ne tafaa ko man mais man nit man nit taxut nga daan ko teexut mu daan la parce que léeg-léeg ngay dox ba fakastalu waaw loolu moom jotewul dara daan jour boobu mais man nag moom di nga xam ne nit ki kii ma man kii parce que kusum gii nuy entraîné booy ñaar bu fa dikkoon rang yàlla xam na ne yonent bi nga boole kook tafa deux cent mille ñu koy bëre par cinq mille du ci am quinze mille wallaay wal azim kooku moom assuré naa ko kon de booy nga bëgg wax ne dugg na niru non bokkul sax mais nag xam nga làmb moom làmb la mën nga daan ku la man gis nga ko fi ba tàyyi tafa gay dikk na fi di mboot daam sugeer jiitu ah gis nga fi mber yër mber génn mu reppeelu dépp xam nga loolu yëpp war a daanu la làmb moom moom la ñu war a da net ci di way daan mais di wa man moom man xam naa ko moom xam naa xam naa ku ne ak kii mber bu la mën man xam naa ko looy tàggoo non li may tàggoo mooy di gërëm sunu mag sunu frère muy Daouda Sarr wax dëgg yàlla doon na koo xamante ni lépp lu saa yu bawol jógee aussi man saa yu ma jógee rek moom mu jóg te vraiment lu ma ko wax rek def koy def kooku moom mënuñu ko bari ña gërëm parce que sunu mag la sunu xarit la sunu doomu ndey la sunu lépp la sunu conseil la ñu nit conseil am lañu ci lépp benn nit lañu di gërëm Jib Thiaw sunu rakk la mosul nu tàngam lu ci dara di gërëm Mor Ngom Mbay Joon met Pape Sène parce que wax dëgg yàlla met Pape Sène it yow ñoo fay ànd heure bu ñu demee vraiment day ak accueillir waxtaan ak ñun jël ñàqam jox nu te yàlla dogal na ne man ñooñu ñëpp bu doonoon ni sama intérêt bopp la rek duma ci dem ci kenn du ma dem ci kenn parce que lépp lu ñu jël ci Bawol la ñu ko def te lu ñu ca def man it dinaa def comme ñoom waaw mais bëgg a boole doomu Bawol ak it bëgg fépp fu ñu nekk ñoom fu ñu toog ñun di leen sàggal diwu leen wane ne ñi ñu ngi liggéey ci Bawol ñun loolu rek moo nu intéressé parce que xaj na maître Pape Sène ba ma fa dikkee ba ma accès yow sa kanam ba ma jëkkee dikk ci moom del ma ne Badajon xàmmee ma reconnaître la may def parce que boobu man maa ngi koy siifur te loolu rek dafa dafa am solo daal kon waruñu dugg ci dara ci àdduna mu koy dégg te bokkul ci wax dëgg yàlla waroon nañoo dem ci moom sax mais xam nga rek affaire bi xat na aussi bëgguma bëgguma ko di sonal bëgg naa fay dem toujours may xaj na liggéeyam tolluwut foo xamante ni da ngay dem di dem ak a dikk affaire yooyu vraiment loolu daal moom ñu ngi koy dénoncé di la gërëm di la sant am na solo kon gomis suñ koy tëjee rek loolu mu wax si maître seen kooku moom mën naa ne mooy avocat bool parce que yàlla dogal na loolu yaa ngi dégg di sama xarit di sama mag yàlla boole ñu muy ko am kàddu vraiment maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xam ne tamit sénégalais nga waaw parce que même même bu ñu nee Bawol sans frontière mais lépp solo rek mooy Sénégal sans frontière waaye daa fekk ne hélas kër gi bu taxawee ay néeg a fii ne néeg yi nag bu guddi jotee ku ne am nga néeg booy fanaani waaye bu bët setee ñun ñëpp ñooy bokk daje ci ëtt bi di waxtaan loolu mooy Sénégal maanaam moo tax ngay dégg Bawal di dégg Siin Saalum Njaambur ak Sidd ak Noor ak Fuuta ak fu ne mais ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xarñaal yàlla na jàmm yàgg Sénégal